asalaamaaleykum waa Mbambey maa ngi leen di nuyu di jeglu bu baax ndax incident bii fi am du sunu coobare ñun ku ñu xam xam ne ci jàmm ak salaam la dox bi ñuy ñëw fii xamuñu woon ne Djib caw def def fi war a mitin man Mbambey dama fi bokk ginnaaw bi ma àndeek sama mama Mère Yacine Ndiaye ak sama grand frère Alassane Dieng man Mbambey dama fee bokk dëkk bi rus naa fee def lu ñaaw ngir lan ngir màgget mil ma noyu fii sànq dëkk bi rus naa fee def lu ñaaw ngir Baye Youssou dëkk wi rus naa fee def lu ñaaw ngir Arona Magam dëkk bi rus naa fee def lu ñaaw ngir Basirou Dieng dëkk bi rus naa fee def lu ñaaw ngir Amari Dieng dëkk bi rus naa fee def lu ñaaw ngir daam Diouf dëkk bi rus naa fee def lu ñaaw ngir Talla Diouf dëkk bi rus naa fee def lu ñaaw ngir Cheikh Ndiaye dëkk bi rus naa fee def lu bon ngir ki nga xam ne mooy Cheikh Ibra fii a fi bokk kon il faut ngeen xam ne maa sey sama xarit sama doomu ndey sapeur pompier fii a fi bokk man dama jaxasoog xale yi liy saafara Mbambey xam nañu ko demane tey Alassane Dieng mii képp kuy waxal yàlla xam ne développement wu Réfane ci loxoom la gën a gaawee lu tax parce que moom rek moo fi am ay partenaires yoo xam ne tey sunu ko jàppalee mën naa yóbbu Réfane fu ne tey maire su fekkoon Réfane moo ko ñor commune bi moko ñor du xol alsan and nak man wala alsan andu nak man ndax ki acteur de développement la ñepp ko soxla fo and ak mom dañuy siggi dañuy contane wax naane maire lamine bi dal mo neex mais du lamine wu neex amul ben ben ben ben gis-gis wallahi man dama ko xam man mi di wax ak yeen dama xam maire bu baakha baakha baakha baakha mbaambey li fi nekk mën naa ne du doon fukk maire benn la fi def defu fi dara li muy continuer wax mooy dige dige tey dige suba dige ginnaaw suba dafa war a doy sànq dama wax nduktaan mane ne ki la dig ndekki toog ba 17 mu dóor laa jox ndekki li naan sama añub subaay dàq doo ko gémmee yaa ko teg sa bopp ma il faut ngeen xam ne ab cuune mo yor commune bi Mbambey ñun li ñu tax a jóg gox bi lepp lu fi jafé jafé ñu saafara ko ci kàttanu yàlla mon nañu ko mais duñu ñew di xass ay imam duñu ñew di jaxase dekk gis nga dekk bi tey du ma gañe woon mairie bi ma xol procès verbal yi ñu ne Mbambey deux voix nga fa am du tee Mbambey li nga xam ne mooy seen àq ak seen yeleef dama leen koy jox ba mu met sec ndax njiit njiit une fois ñu fol la nekkatoo njiitu opposant wala njiitu pouvoir da nga war a nekk njiitu ñëpp tey doon naa rafetlu su ma ñëwee fekk fi ay militant wu Djib Thiaw ñu tàccu ma encouragé ma won ma seen ay tisati jib Thiaw ma ne leen merci beaucoup nii la nanu ko def lépp ci fair play parce que dama né seetaan mu amé ci kaw asaman jarul buuxante doonee ni rek da ngay gis kon mbambe yéna bok ndey yéna bok bay gis nga commune bi kenn mënu ko xajalé muy Colla muy samel muy mbambe muy mbotal ñun ñëpp ño bok ndey mo bok ño bok bay ab ko am ñiy farfee ñii farfee ñuy xiiroo di ŋaayoo te defuñu lépp ci demu kaas dekk bi day soox nit mën nga bokk ak moom ndey ak baay mu far siin nga far saalum loolu aayul parce que politique li ci am solo mooy ñu confronter idées yi bare dafa ñëw ne leen man de ah lii laa bëgg a yéene Mbambey jibi caw ñëw ne lii laa bëgg a yéene Mbambey mais ngeen tëdd ak seen ngegenaay xool mais lima ma mën a xam mooy Djib Diaw defu fi benn at defu fi ñaar defu fi ñett def fi ñeenti at def fi juróomi at def na juróomi at yi nga xam ne moom la waro won yoon loolu la ko may muy at ñu may ko buuñaa ñaari at muy juróom-ñaari at ma ubi len sen xel yi te ngeen déglu ñaari at du juróom-ñaari fan du juróom-ñaari semaine du juróom-ñaari wer ku nu jox juróom-ñaari at te transformé dëkk bi mooy sa xam-xam des na sa vision des na wallaahi. dama leen ne waa ji xam naa ko bu baax yàlla xam na ne su ma xamoon ne jëlaat commune bi Djib Thiaw moom mu jëlaat ko mooy njëriñu reefan du ma nekk candidat mais dama dem ba jàmbat yi bari foo jaar ñu naan vraiment ñun de wax dëgg suñu bëggee mat dañuy taal oto wala ñu taal saret ab nangam nangam bari na parce que tey du ñëpp ñu am ambulance dem pargin loolu lan ma wax pargin nee nanu ma fii jigéen bu fi mat dañuy dem ci chef de village bi mu abal leen otoom mais su fekkee jour boobu ñaari nit dañu cee mat wandoo musiba day am te vraiment oto ambila ambila yomb na tey dëkk bi ni ñi ko jiite ñoo amul vision parce que xam nga li tax ab dëkk soo ko bëggee développer foog nga impliqué ñi nekk ci dëkk bi ci développement wu dëkk bi mais fekk yéen a ngi gis ab maire bu leen naan kii farul ak ñun bu ñu ko jox saaku suukar kii farul ak ñun bu ñu def courant goxam kii farul ak ñun bu ñu def ay projet pour femmes yi dëkkam duñu dem fenn nanu waxante dëgg te liggéey ngir askan wi jóg man fii dama fee am ab cër dama fee bari xarit wallahi mbambey lima fi bokadon ñoo xam ne bokon mak maak ñoom classe ëpp na wéri nit kon rusna ma ñëw fi ñu naan bada moo xeex mbambey wala bada moo sagam mbambey lol duma ci dugg li am solo mooy waa mbambey yen ñi andak man ma ngi len di encourager te di len xamal ne wa ji ñu sekkal muy jibi ciaw election ko bayyi ci mairie bi Yen ñi nga tamit yena farak jib caw maa ngi leen di wax ne sunu gañee bi du Yak dara ci li nga xam ne mooy cëru mbaambey ngeen ànd kook Alassane Dieng ànd maire parce que maire du maireu PDS du maireu APR maire maireu commune bi la ku koy xajale ku ne xam-xamam des na moo tax yéen ñiy di xeex que ça soit ñi far ci man wala ñi far ci jaruko bu len bu incident bi am c'est normal politique parfois dafa baxo yoyu mais mang ngi di ñaax ngeen def fair play ngeen pas def ci yar ngeen ko def ci parce que tay tu fi nit mais man su boba duma ko bay duma gisee sama yaram dina daw sama fokk ma taxaw dugal ko ci oto yi encadré ko ñu yóbbu ko ci hôpital ak fu mu mën far kon loolu baaxul waa Mbambey maa ngi leen di sant di leen gërëm jafe-jafey dekk bi xam nañu ko dekk bi am na lu bare bëree bari lu nu fi war a def ci wàllu projet nee naa leen Alsaan jeng mii am ko ci gox wallahi change la jërëjëf Bada Alsaan Dieng am ko ci gox change la bu len foy loolu ubi len sen bot ci xol kon lol lañu amon liñ len di wax maget ma ng lay noyu di noyu gaay yep yëpp. jaajëf assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa ay wa ay wa ñu avancer aja ana wa dem wa ko Bada ni ko waxee rek nonu la nañ avancé waa Mbambey jërë ngeen jëf ñu ngi tuub ga jeglu jéglu. DJ Kolos. même Baye même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même paradis du littoral. Réumi Kawa total Nyari Ak, ñëpp doyal ci ku collectif